colon yi jële won ko fi fu ne ñu duggal ko fa lu ne ñu def ko ko te ba ko suulee ca kàmb ga mu am fa juróom-ñaari fan ci biir suuf ba tax mu bind ca bax baxa ne am matani hatta dakhaltul barzaqa fali yahab han kulli su'in barzaqa ñu def ko liñ ko def lépp wan ko liñ ko won lépp mu ñëw ni jéggal na ñépp kon ku fi nekk tey donte système bi mo fi nek ba tayit te nga fessel ni jox nga ko sa bop jox nga sa bop Cheikh Ahmadou Bamba khadim rasoul yermande joju nga war ko caa ñaan ndax itam nak li mom maké ko mom limay wax ndax itam nak buñu fi bayé Sénégal yépp ni ñu tollu ni la ciopet ni la jité leen deug la japp yag na fi jappé japp nañ fi wàlliyu japp fi sëriñ japp fi cheikh comme ni ñuy jàppe bandi ak wëyu depuis Senghor ñuy jàppi sëriñ ak i wàlliyu ak ay cheikh comme ni ñuy jàppe sàcc ni ñuy jàppe bandi ni ñuy jàppe délinquant ni ñuy jàppe wëyu c'est le système bu ngeen gisee may wax wax ji du dara lu dul bëgg ay réforme ñu delu ci suñu xel ku na xam na ne Macky gaynde gu tax gaynde gu tax nag ñaare bu jigéen ba bu fekkente ni buruwee ngi ñëw te geesuwul déggul wi bi bu jigéen ba bi taxul moo ko war a kobas pour mu geestu wala doom ya nga xam ne ay waxambaane la ñu mën nañoo jàpp kéwal gu ndaw loolu yépp ci yërmande la kenn ku nekk ci ñun foo mën a nekkee responsable dañ la war a assister war lay soutenir bu ngeen gisee Pierre Ahmed mii ma wax ko li ma ko wax pour mu annoncer révolution bi révolution kay bu buñ ca tegee pacifique kon amatul dangar am déet révolution bu ñu pacifique amatul dangar ñi révolution ñepp révolution tout court rek la wax waaye pacifique mom bu ñëwé rek amatul dangar ndax ñu naan dañ naan yalla néna yonent bi néna serigne touba néna lolu amul dangar ak itam ñu sétantal man sama doxine man dama bëgg a fédéré dama bëgg ñuy fàttaliku lu rafet te fàtte ñaaw te loolu du man maa ko bëgg ku tedd ki sunu yaakaar tey ak ëllëg moom moonu teg foofu moonu joxoñ foofu li képp la moo tax bi ma waxtaanee ak Ahmed ma ne ko ab Ablaye Wade dafa am lu ñu waxante woon bu yàgg booba Macky mooy premier ministre wax jay nelaw loolu képp laa yee loolu képp laa yee di ko jox titre honorifique ndax mag la ñu war ko honoré wala xëyri yi loolu la du leneen léegi itam comme xale bi tax ñuy marché tey comme ñañu ko jàppandooloon bàyyi nañ leen bu ñu ko bàyyee du leen wàññee dara ñoom <laughs> du du du du leen jural benn faiblesse waaw ñoom ndax ñoom baaxoon nañ di wax naan euh, force toujours reste à la loi nangam ak nangam baaxoon nañ di wax yooyu <laughs> bu ko defee parce que marché gi itam nag wax deug yalla li ma wax legui rek comme ku ci nek da nga nek sa deug dal mom constitution bi may le sa deug deug gi nga xamanteni ne bi mooy dëggu yalla gi te du ko nañ ci wëlbatiku ñun ñëpp bu ñu ko defé rek jàmm ni ñoy rew mi nak lu fi mëna xew noko ko suñu bopp ndax wax dëgg yàlla danoo am ko xam ne daf daan signé wasalaamu ala man tabaha al huda la paix est avec celui qui suit le droit mom la Cheikh Ahmadou Bamba l'homme ak ah, deux signature moom lañu mës a gis ko am ñaari signature ndax gis nga ko abu feneen ku am ñaari signature existé ci nit normal moom ñaari signature la amoon usalaamu ala man ittabaha la huda moom la daan ëpp lu mu daan signé waaye wallahu ala ma naqulu wakil itam fu ne ngeen fay taseeg moom ci xasaay bi ñaari signature la amoon wallahu ala ma naqulu wakil mooy yàlla mu ngi compter ci lii muy wax <laughs> kii doo ko am ci sam réew ba noppi nag di indi ay baj bajak ay kii cim réew hmm? wax dëgg yàlla léegi nag mag yi na delloo si xelam te fàttali ko li ko yàlla defal ak parcours bi mu def waaw ak course ñi mu doon coursel waaw bu xalaatee lool rek il est le chef suprême day wax gouvernement leen nangam ak nangam ak nangam <laughs> ma leer nañ pouvoir judiciaire dañoo am autonomie itam pouvoir législatif am autonomie waaye dafa am constitution bi moo may ci wax ak bu ko ay ki euh, kaso dal dafa am li ci Serigne Touba wax mom kaso nee nan ko bolé ci mbir yi di ko xel waw nee yalla limu ni natto fi bi mu fi indé ci planète bi bu ci génné kaso bu ko ci génné ndax nee na ñaar da ngay bari ay bàkkaar ba nga xamni ni yi dara mënta tax mu wàcce la luddul ñu duggal la ci kasso bi pen la nga muñ pen bi ak lu mu bari bari lu mu yàgg-yàgg suñu boroom xam ni muñ nga ko ñu jéggal mu wax malayka yi ñu effacé bàkkaar ba wa illaa mu am martaba bu ñu la bëgg a jox hauteur boo xam ne foofa lañu la koy joxe faw nga dem dugg fa nee na ñaar yi rek moo fi nekk ci kaso waaye jërul bañ am ma jëmmi nag fee bi nga xamante ni bii moo la fa dugal ak ñi la fa dugal loolu moom leneen la waaye ku ne xam ne ni daal ku ne gis na France la fa xewoon ci grève ak ji ñi yëpp Hein? gilet jaune yi gis ngeen ni mu duree ni mu yàggee waaye loolu France bokkut ak fii hein? ñun ni li ñu war a roy hein? d'accord yoruñu république islamique naam ndax système bi fi des ba tey waaye Sénégal Arabie saoudite la war a naw lool ndax ku tedd ki rafaxani iqdamu xayri rusuli rafan bihi waa faktu kulla mursali moo ko alayhi salaatu wasalaam nii ba ñu koy suul ca kàmb ga ca Gabon yonent bi moo jiitu ca biir xamuñu dal ki nu am wax dëgg yàlla ndekoon yii yëpp tubaab gerte ragal dañuy defe ni tubaab yi ñooy bëri ñun ñooy baadoole yi au contraire tubaab yi ñooy baadoole yi ñun ñooy bëri nu comprendre kat laa wax langue bi du dara mook langue bi yëpp a yem dégg nasaraan ak dégg beneen langue ak langue yëpp a amul ci benn langue bu génn abajada hawaza xotoya kalamana sahafada xarasata dëxada daqasha langue boo mën a dégg foofu la jóge ci 28 lettres yooyu te ku ko jàng rek jàng grammaire rek mën a làkk du dëgg ku tedd ki nag naar yi moo leen daan jubbantil seeni arab nous li nuru lisani wal kitab as man a xidmati la daa ahlil kitab gën a dégg arab ñepp intellectuellement bu fekkee intellectuel rek la wax wala savant mu ne maddaleel xaqul mubinul xaqa wa bil xiyaaral ulama araqa da ngay nekk savant ba noppi ñëw doon sa muy soog a doon sa escalier kooko dul kenn te kenn du moom réew mi lu fi xew nu na wàccoo na ak ñun nanu yaatal yërmande ji te fu nu fekk dëggu yàlla gi nan ko xajal palaasam fàtte suñuy dëgg parce que suñuy dëgg dafa relative quotidiennement lii kat la moo tax ma wax abu ak Bachirou Baro ak Abdou ak Muniru ma ni leen Ahmed mii

annonce tendre la main à tout le monde ni ko rek avant may nañ ma wax itam ki nga génération bu révolutionnaire génération bu waaw hein? est-ce que langue euh, dans la langue française est-ce que vous rek fa non non <laughs> ki ni non daa am lu tax mu ni non ki ni wëy daa am lu tax mu ni woy woy non no woy moom ñaare doo ko dégg fenn ba bokk relatif bi moo koy waral relativité bi moo koy waral bu ko defee nañu yaatal yërmande ji Macky yaatal yërmande ji man nag damaa jóg pour ñoom rassembler leen fédérer leen ci bu ñu ko nangoo yi ñuy def nii ñuy jaar nii ñuy jaar nii ñu naan dama bëgg a jiite réew mi ñu naan dama bëgg a liggéey laa yooyu yëpp dafa am loo xam ne moo ko war a jiitu mooy xam ni Sénégal ku tedd ki ci ba muy soog a jóg daf ne xadd enqanil yow ma xubbul ahli wal watan xandar ki li zawil anwaar yi wan fitan li ma gàllankoor mooy bëgg sama réew ak sama ñooñ réew bi egg guma ci boroom leer yi leer yi ma bëgg a yegg foofu la tàmbale ki koy jàngale na nu ñuy bëggee sa réew hmm? waaye jiitim réew jiitim réew waaw jiitim li gën a war mooy fexeel ba mën a jiite sa famille d'abord Ah, apprentissage la ngay ba sa famille boy jiite sa famille nan ngay un nek chef de famille buñu respecté waaw ku tedd ki mokay da ngay jël ji ko def ko tappi ba ci intention bonne intention bonne parole bonne action tàmbali ci sa famille say wayjur sa soxna sa doom say jarbaat et cetera waaw te doo xëccoo dara lu la waaye gën a bëgg nga bàyyee ko ku def loo xamante ni bi dafa ñaaw ci yow nga ne xañ na forme mu bee ñaaw waaye fond ba baax la ku tedd jàngale ñu nekk fii rek ñun defe ni noo ci nekk kuy jóg <laughs> loolu la man nag fi ñu toll moom xam nga ne woon naa léegi Macky gaynde gu tëx la man itam nangam luy gu tëx laay doon des nangam gu tëx néew ma gaynde nag waaye ci lan laay tëx mooy liy yàq hmm? lii merloo doomu aadama lii tax doomu aadama bi di stressé mbaa muy angoissé te man loolu ku tedd ki musal ma ci mbaa liy tax doomu adama bi di mer te loolu ku tedd ki musal ma ci man yooyu dama koy yéene ñëpp moom laa yéene ñëpp waaw looloo tax ma xëy rek ne bàyyi naa ceeb bàyyi yàppu xar bàyyi yàppu nag bàyyi jën bàyyi ginaar ku ma déggoon nga def koy nag ma respecté la ku ma déggoon nga def loolu tey dund ma respecté la Ameth euh, li ñu lay coordonné loo en tant que administrateur ak say collaborateur di ñaan ku tedd kii moom mi nga xam ne xam na li nu tax a jóg mu leeralal la yoon bi renforcer la xam-xam bi parce que xam-xam dafa bari waaye bi am njariñ moo tax ñuy wax bi am njariñ nag Serigne Touba ko yor xam-xam bi am njariñ Serigne Touba ko yor waaw tey base bi mooy saytu ak moytu. li jara saytu nga koy saytu li jara moytu nga koy moytu di kep la kat assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh